ñu mayee ñu fekkee ouverture session unique bi di tàmbali di sant président de la république son excellence Macky bi nga xam ne moom mooy président coalition benn Bokk Yaakaar nga xam ne moom ak leader yi nga xam ne moom la bokkal benn Bokk Yaakaar am nañ euh, confiance ci sama personne ba désigné ma pour ma diriger groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yaakaar te loolu di ci sant aussi sama ay collègues parce que jàpp naa ne bu fekkoon dañu ma proposer sama collègues yi nanguwuñ ko aussi jàpp naa ne loolu du mën a ant donc vraiment damay sant le président de la République di sant leader u Benno Bokk Yaakaar yëpp mais aussi di sant samay collègues députés yi nga xamante ni ñoom laa bokkal groupe bi di wax rek ne liggéey la boo xam ne jàpp nañ ne te xam nañ ne du yomb ndax liggéeyu boo xam ne da nga mérité nit ñi gënoo dàqoo leen jàng ëppoo leen expérience gënoo leen juddu euh, amul dara ci qualité boo xamante ni jàpp nga yaa leen ko def ñu jël la ne la yow kat yaa leen di jiite mu am ñoo xam ne yaa leen mag am ñoo mag am say nijaay say papa loolu mënul yomb am aussi ay ñoo xam ne ay cadre lañ supérieur am ñoo xam ne idéologie yi bokkul parce que groupe Benno Bokk Yaakaar am na ay libéraux am na ay socialistes am na ay trotskistes donc loolu. soo seetloo rek da ngay xam ne mënul doon lu yomb ba pare député ku ne xam ne ne am na liberté boo xamante ni li mu xalaat dafa koy wax donc loolu bokk na ci li nga xamante ni ñu ngi koy xalaat ba pare remplacer koo xamante ni nit ku ubbeeku la nit ku am jom la nit lu ku mën a liggéey nit ku mën a waxtaan la nit ku généreux la ci partager expérience ak li nga xam ne mooy xalaatam muy le président Omar Youm moo koy félicité au passage parce que nommé nañ ko ministre des forces armées loolu compétence moo ko may donc jàpp naa ne su fekkee dañu la remplacer kooku di nga xam ne mbir mi du yomb waaye nag jàpp naa ne dina yomb ndax dinañu déglu dinañu doon euh, bàyyi faalu suñu collègues yi mais aussi dinañ nekk à la disposition du président de l'Assemblée nekk à la disposition de tous les députés parce que Assemblée nationale boo fi xasee dugg nekkatoo député fenn député Sénégal nga donc jàpp naa ne loolu aussi dinañ fexe mériter confiance boobu nga xamante ni placé nañ ko suñu personne beneen bi nga wax léegi moom mooy wala opposition bi ndax division bi duñ ko déedéet division bi dama jàpp ne mën na ña mënul ñàkk parce que même ci biir ñoo xam ne dañoo bokk famille politique da ngay gis ay jaaxasoo parce que ñi nga xam ne tey wax nga ne léegi division ñoo àndoon ñëw groupe parlementaire ñëw benn bokkeekat euh, ñëw fii ci assemblée nationale taxawal yeewi askan wi tey waroon nañ ay gis-gis mais loolu du am benn impact ci li nga xamante ni mooy assemblée nationale ak fonctionnement bi parce que boo seetloo tey ñun 82 députés la ñu am waaye gis nga ne. bi ñuy voté lu ëpp euh, téeméeri député voté nañ ci ñi nga xam ne mooy membre bureau loolu mooy wane ne malgré divergence yi ñu am malgré li nga xamante ni mooy waroo ci xalaat bu ñu ñëwee fii dañuy xool askan wi xool intérêt Sénégal xool li nga xamante ni mooy jëmale réew mi kanam ñu taxawee noonu donc loolu jàpp naa ne. lu am solo la te dinañu continuer di ko def parce que di euh, continuer di waxtaan yeneen groupe parlementaire yi yeneen député yi di waxtaan ak ñoom pour que la nga xamante ni moom la ñu namm ci ñun yaakaar ko ci ñun ñu mën a remercier loolu